bismillahi rahmaani rahiim audu billahi min alsheytaani irajim la hawla wala quwata illa billahi alaliy alazim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu tàmbalee ci suñu turu boroom subhaanahu wa taala julli ci sangub sang yi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di ziyaar kilifa diine yëpp di ñaanal ñi ci hôpitaux yi feebar yal na yàlla saafara leen di ñaanal itam mbokk yi nekk ci prison yi yal na yàlla génn leen fa ñu ne te bu ñu génne itam yal na leen yàlla xiir si ak njub di ziyaar fu jullit nekk rek fu nit nekk rek ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar waaw tey nag ñu indi benn xadis bu am solo boo xamante ni si alquranul karim la yonent bi sallallahu alayhi wa di wax la mu siy wax nag mooy fadlu taallumul quranil karim wa taalimi mooy ngëneelu jàng alquran ba pare di ko jàngale ñu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man taallama alqur'ana wa allamahu rawaahul buxaari ñu ne yeneent bi sallallahu alayhi sallam dafa wax ni ki gën si nit ñi mooy ki jàng alqur'aan ba pare nag di ko jàngale ñu ne xadis bi ku ñuy wax buxaari yi moo ko solo waaye nag xadis bi dafa laaj dégg bu baax a baax a baax yonent bi dafa wax ki jàng alqur'aan jàng alqur'aan nag mooy da ngay xam alqur'aan ndax nit bala moo jàngale dafa war a xam li muy jàngale ba pare comme li yonent bi sallallahu alayhi jàngale rek ne nit bala moo liggéey dara na xam liggéey boobu man liggéey boobu defe naa ne loolu buñ ko toppoon àdduna bi du am benn problème ndax nit ku nekk buñ lay jox liggéey boo xamante liggéey boobu man nga ko di nga si taxaw taxawaay bu rafet waaye nag dangay gis ñu jël ab liggéey jox ko koo xamante nii mënu sa dara bu ko defee kooku day seetaat keneen ku man loolu mu ko siy dimbali kon bala ñoo def loolu nan jël ko ka man ñu jox ko liggéey bi comme niñ joxe misaal rek ne xam sa barawam xam li mu digale xam li mu jàngale mooy li nu yenent bi jàngal ñu ñëpp nga door koo jàngale loolu dafa war ndax bala ngaa xamale da nga war a xam ba pare kon kii jàng al kii jàng alquran daf ko war a xam xam bu wér bala moo dem di ko jàngale ji ndax bu koy jàngale mu jàngale ko jàngale bu wér waaye nag jamono ji ñu toll nit ñi yàkkamti nañu pour nu ñu am rek ba tax na dañuy résumer lépp loo xamante ni wàllu jàngal ak wàllu ut xam-xam pour yàkkamti rek pour mën see uti ji alal waaye nañ bàyyi xel ne suñu borom subhanahu wa bëggul kuy tricher nit ki lu muy def rek dafa war a nekk dëgg ci moom dafa war a nekk lu mu xam rawatina nag li nga xamante nii mooy kalaamullahi mooy waxu yàlla yi muy alquraanul karim te ki nga xamante ne jàng na alquraan itam waxuñu ko rek mu jàng ko di ko jàngale nii waaye moom ci boppam daf ko war a jàngale ci melokaanam ci waxinam ci jëfinam ci doxinam si solinam ndax boo génnee ñu gis la ngay dox gis la rekk dina dëggal na yow mii ku jàng alxuraan la ndax buñ la gisee nga sol lu yiw gis la ngay dox doxee dox bu yiw gis la ngay waxe wax yu yiw gis la ngay jëfe jëfin yu yiw kon kooku nag moo jàng alxuraan ndax tamit dañuy wax ne yàlla boo ko gemee ba noppi nag danga nga koy topp nag sa lamu la digal bàyyi ko sa lamu la tere mooy alquran boo ko jàngee ba pare nag da nga war a yor jikko ja ndax alquran jikko boo ko amee ku la gis xam ne jikko ju rafet la ndax loolu la yàlla suñu boroom tagge suñu sang bu tedd bi seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa innaka la ala xuluqin azim tagg naka ndax jikko ja te jikkoom du dara lu dul alquranul karim te alquranul karim nag waxu yàlla la waxu yàlla lépp dëgg la kon nag mbokk yi xadis baa ngoog alquran daal boo ko jàngee da koy jàngale sa wax ja sa jikko ja sa jëfin ya sa melokaan ba ndax alquran jàngale na te yonent bi tedd bi sallallahu alayhi sallam jàngale na ko si ni mu gën a rafete kon nag ñun amuñu lu dul topp moom yonent boobu topp ay digalam bàyyi ay tereem ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di baalu àq nag suñu borom bu dee am nañ si njuumte jubluwuñu si loolu waaye dañ si jublu rek fàttali jaami yàlla waaye nag ñun ñii ay jaam lañ ñooy wax ñun ñi ay jaami yàlla yu doye di lañ ñu ngi koy jéggalu bu dee juum nañ di jéggalu mbokki jullit yi di jéggalu àdduna bi yëpp di wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.